mboolem xelloon kon rek mu doy ngeen xam ne lislaam dootul fay buur yàlla kon yàlla ci yàlla jàppale njaboot yépp yépp yépp ñetteelu sabab bi tax ñu àgg fi ñu àgg mooy institution yi nga xam ne dañ leen a taxawal ci réewu jullit yi ngir fexee yàq doomu jullit yi am na ay institution yu bëri yuñ tabax ci réewu jullit yi léegi li ma ci jublu mooy ay groupe yuñ jël jox ay moye wutal leen programme ngir ñu yàq doomu jullit yi vacances yi moo doon occasion bi jullit yi amoon sa waay rawatina jullit yi jàpp ne mun seen doom yi munuñoo boole école ak daara nga xam ne su école ubbee ci école bi rek la dem occasion bi ñu fi dese woon mooy bu vacances ñu jël xale yooyu yóbbu leen ci daara bi weer walla weer fukki fan ak juróom ñu mos tuuti alquran mos yar occasion boobu lañ bëgg mu échappé leen ñu créer ay xeetu ndeke xeetu foo xeetu wooy ak fecc nga xam ne non seulement ñoom ñi fa dem duñ jàng ci waaye ñi doon jàng leen jàng duutu am jot jàng ndax kër koo dem xale yi loolu ngay fekk ñu seetaan illaa man rahima rabbi mooy seen bu commencé rek ñu commencé te duñ fa def lu dul jàngale mbon jàngale ñàkk yar jàngale ñàkk kersa danañ fekk jàngale fekk jàngale wax ñu ñaaw ci taas yi mais jàngale ñàkk kersa ci yëre yi ñu sol kon ñun buñ ko yëgee buñ ko yëgut am na ñu nekk suñuy tànk te ñooñu duñ ñu dul ñu bëgg a xëccoog ñun ci njaboot yi nangu njaboot yi suñu loxo def leen ñoom niñ bëgg ñu mel ko te ñooñu bu ñu amee liñ bëgg dëkk bi kenn du fi ñemee tee wax ni góor jigéen baax kenn du ko ñemee ci foofu lañ jëm ak ñun mooy doo ñemee wax ni góor jigéen baaxul <coughs> baax na liggéey bu rëy la liggéey te liggéey dañ ko def ak technicien parce que xam-xam lañ koy defee dañuy am seeni concept et turu bopp lépp loo tuddee woon lii bu bu fekkee turu yi day déranger ñu tudde ko leneen xoolal borom ñaari borom ñaari tur yi Sénégal dañuy jékki-jékki rek ñu ñëpp ñu ñu àddu ñëpp ko kenn xamul ko ko laas borom ñaari xam nga borom ñaari tur dara nekk tur tur tur nga am ñaar bokk nag góor jigéen góor jigéen mooy nit ku bon kooku nga xam ne dafay góor ba pare jàpp boppam jigéen wala jigéen ju bon jooju nga xam ne dafay jigéen ba pare jàppe boppam góor di def jëfi góor kookoy góor jigéen ku bon kooku yàlla alak alak réew ma ko doon def santaane ki koy def ñu ñu ñu rey ko tur woowu tur wiy fàttali lu nañ ko fi jëlee indi tur woo xam ne soo ko déggee ça te dira rien mooy première tur lan mooy première tur comme c'est un complot ils sont extrêmement dangereux dañuy changer concept yi ba ngay ñemee ko fi mu nii wax góor jigéen na ñoo xam ne ñëwuñ ko wax bu baal leen ma première tur day baal góor jigéen la tudd góor jigéen la tudd fen gis nga fen fen lañ ci fen lañ ko dëgg a tàmbale fen dañ ne kenn wax fen dafa diis ci kan la gis xanaa ko mënut a bàyyi ñu ne bul wax fen del wax wax lu amul waaw <laughs> parce que fen dafa diis effectivement daa diis parce que koy def xam ne def na lu bon mën ko bañ waaye wax lu am wax lu amul mën naa bañ fen ma ne il faut ñu bàyyi xel suñu bopp ñun ñi ñu sóoru ñoo gëj a gën a waajal seen bopp ñun waajal ñu suñu bopp de ci lépp la ñuy nax góor jigéen bi gis nga bët bu set def yëfu góor jigéen ne dafa tuum ngeen baal ma damaa juum xaw ma dara xale la xale bu am soxna am doom mu ne daa juum te du juum kat def luy toroxal doo jigéen juum def kon institution yooyu indi y compris les droits de l'hommiste yi droits ñooy ñan Sénégal u jéemu ñoo xam ñooñu ñooy ñan droit de l'homme yi la civilisation occidentale c'est-à-dire ni tubaab yi gisee adduna légiférer ko yoonal ko yaxal ko yóbbu ko Nations Unies ne képp kuy dund ci adduna bi noonu la war a gisee adduna réew yi dul réewu tubaab te am yeneen aada am yeneen diine nangu ñoo mel noonu ñoom la ñu sas droit de l'homme si lañu sas ñu taxawu état yi nekk état yooyu appliqué loi yooyu ñu signé te kenn yëgu muy convention yi nga xam ne gars yi dañoo yoot dem signé di ñu bisi suñu ministre yor ay ministre de la femme ak waa ministre action sociale ak ñooñu groupe boobu ñoom ñoo ko signé ñoo yor ndànk dem signé fa ñëw noppi daganal góor jigéen Sénégal góor jigéen dagan na fi bu yàgg problème bi kay mooy ndax ñeme nañ ko wax sénégalais yi wala déet parce que góor jigéen dagan na ci loi adduna bi ci convention yi yi yi yi adduna bokk dagan ci te lañu wax mooy réew mu nekk sa loi ci suufu convention boobu la nekk lu ca dëpp ak moom garde ko lu ca dëppwul ak moom changé te réew yi nangu nañ ko donc góor jigéen dagan na fi ba pare moo tax toog fi di xaar état bu la jàppale ci xeex góor jigéen ki koy def il n'a rien compris état buy xeex góor jigéen amu fi état yi liñ leen sant mooy ñu nañ góor jigéen dañ koo ñemee gu la wax dañ koo ñemee gu la wax waaye nag seenti ci ñoom ñu jàppale la xeex kuy foo koy def kon mbir yi ci suñu loxo la nekk suñu neexee li ñu si njëriñ ko nëbbu ñu am fitu wax ñu ko suñu neexee la ñu si njëriñ du ko nëbbu duñ ñu ko ñeme wax duñ ko fi def loolu ci ñun laaju kon institution yooyu di groupe yooyu seen liggéey mooy tas suñu diine ji yàq dëkk bi boo xelloon kon rek mu doy ngeen xam ne lislaam dootu fay